salaamaaleykum mbokk yi safoo di seetaan seen télévision Safina tey ñu ngi fii ci buntu maternité bu Grand Yoff nga xamante ni tey lañu ñu war a amal lii di lii di réception provisoire maanaam euh, tijjite bi nga xamante ni tey daanaka lépp yemm na lu ñeel ci wàllum euh, lii di post de santé bi ak maternité bi gis nañ ko fii sànq dinañ fi wàcc xool askanu Grand Yoff ana nan la ñu gisee liggéey bi nga xamante ni kii di maire Madiop Diop amal na ko ngir amal fi li ñuy wax maternité nga xamante ni saa su ne dafa dem nekk ab jafe-jafe pour ñi nga xamante ni ñooy askanu Grand Yoff bu ñu waree matu rawatina ñi di soxna yi faaw ñu génn fi dem beneen yoon poste de santé bi tamit yemm na suba rek bu soobee yàlla dina tàmbalee liggéey ndaxte équipe nañ ko lépp yemm na ah, du yàgg dara tamit dinañ fi ànd ki nga xamante ni moom mooy Basirou ah, Samb nga xamante ni mooy directeur wala euh, directeur ah, cabinet directeur de cabinet bu maire bu euh, Grand Yoff di Madiop Diop mu wan ñu lan la liggéey bi demee dinañu présenté lépp li nga xamante ne mooy maternité bu ñu jógee ci maternité bi dinañ dem tam ci li nga xamante ne mooy poste de santé bi nga xamante ni taxawal nañ ko nga xamante ni euh, suñu sukkandikoo si seen i kàddu nag dinañ ko tàmbali euh, ni ki ëllëg di fàttali ko rek réception provisoire bi nga xamante ne tey kii di maire bi moo koy amal di Madiop Diop tey lay doon bu fukki waxtu ak jotee di 15 heures lu koy yeel tamit dinañ dinañ ñëwaat tamit ci lépp li nga xamante ni tey moo waral ba ñu taxawal li maternité bi nekk loo xamante ni dañ ko defaraat parce que bañ fi ñëwee suñ sukkandikoo ci cadre yi nga xamante jaar nañ ko am ah, dañ ko daal di toj defaraat lépp parce que maternité ba mu fi am dafa am ay ay salle d'hospitalisation ñaari salle d'hospitalisation la amoon waaye tey fi ñuy wax ak yéen ni am na lu toll ak juróomi salle ah, ñeenti salle d'hospitalisation salle d'hospitalisation bu nekk am na juróomi lal yu nga xamante ni ah, ñii di jigéen ñi dañ fa mën nekk gis nañ fi tamit dafa nekk bâtiment bu nga xamante ni dafa mucc ayib liggéey bu ñu ko defal liggéey am solo la am na morgue na amna na lycée lycp nga xamanteni ni yi nga xamanteni ñoo nekk en classe de terminale fa lañu wara war a euh, nekk tamit euh, li di pharmacie amna tamit laboratoire amna tamit salle d'échographie nga xamanteni ñi ci jigéen nga xamanteni dañoo nekk euh, ci diggante wala jigéen ñu ëmb wann lor tamit bu soobé yalla dinañ fa mëna a def seen écho wala seen analyse te duñu génn fi di Grand Yoff li lañ mëna tënk ci li nga xamanteni moy tay réception provisoire bu maternité ak poste de santé bu Grand Yoff nga xamanteni ni kii di maire bi di Madiop Diop moko wara amal tay ci ngol lay doon bu 15 h jotee jërë ngeen jëf maa ngi leen nuyu kilifa gi di nuyu internet yi nga xam ni yëpp ñu ngi ñuy suivre ci Safina ak médium yi fi nekk yëpp fas yéene ànd ak yéen rek dugg xool kër gi composition bi ak lan lan moo fi am. bisimilah ay ca kon ñu dugg. waaw li li ñuy li ñuy njëkk a euh, mooy bâtiment bi dafa am ñaari partie dafa am lu ñuy wax post de santé am maternité maintenant dañuy commencé par la maternité. comme ça ngeen découvrir que liggéey bu am solo la té limay wax nit ñi du réfection de réhabilitation dañ ko démolir carrément tabaxaat ko fële ngeen gis au fond à ma droite moy partie administrative tout ce qui est la gestion administrative de ce bâtiment ñom ñokoy gérer buñu avancer touti dafa am luñuy wax salle d'hospitalisation biñu ñuy ñëw ñu fi de tay bâtiment biñu tabaxat quatre salles d'hospitalisation la bo xamni benn bu dina am capacité de 5 lits 5 lits ci bir maternité bi déjà salle d'hospitalisation bu né amna capacité 5 lits au total nous aurons une capacité de 20 lits au niveau de la maternité on peut toujours continuer la visite guidée comme ça ngeen gis c'est un bâtiment entièrement rénové par euh, la mairie de Grayon. c'est parce que bëgg nañ euh, salle d'hospitalisation bu fu fa nekk bu soxlaa boppam rek à côté am ay donc vous allez voir que toilettes yi xaw bari trop ci biir euh, ñu ngi toujours ci partie maternité salle d'hospitalisation numéro 2 vous allez voir comme la première aussi on a une capacité de 5 lits moo donc pour dire que ce n'est pas seulement tabac, mais dañ ko tabax ba pare équiper ko équipement yi mu en a àndal yëpp ñu ngi ci euh, continuer bu à ma gauche vous allez voir que le reste des équipements Yep, c'est des équipements yoo xam ni euh, dafa war dem ci biir saali continuer liguey bi donc gis ngeen équipement yi ñu ko ne bu ñu continuer Grand Yoff dañ amoon benn problème moy amul won crèche ku sa doom juddu matul wala ki da koy génne Grand Yoff mais à partir de maintenant am nañ li ñuy wax une crèche xalé yi nga xamni matu ñu wala amna ay jafé jafé biñu ñu juddoo dañ leen di défal crèche bo xamni fi ngay dugg ça veut dire que jigen gi bu laro am ëmb ba kérok muy génn man na bañ a génn ci hôpital bi fii mooy crèche bi à côté fii c'est la salle de garde ki nga xam ne mooy gérer crèche bi au moins mu dend ak xale yi derrière vous avez encore des toilettes qui sont qui sont qui sont qui sont là-bas Si nous continuer toujours fii c'est ce qu'on appelle la salle d'injection xam naa techniciens yi xam nañ réellement salle d'injection lan lay doon. c'est un peu technique. oui c'est un peu technique. Mm-hmm. toujours vous avez aussi des toilettes ñu ngi toujours ci partie maternité bi fii nag muy élément am solo parce que. jigéen ñi bu ñu tolloo dañuy soxla échographie tey boo duggee gis nga am na matériel boo xam ne bu am solo boo xam ne ñu ngi fi nekk mooy salle échographie salle échographie xam ne tey ëllëg eh, mën nañu am des techniciens yoo xam ne dañuy ñëw fii utiliser ko pour gën a oyofal suñu jigéen ñi parce que l'objectif c'est que suñu jigéen ñi ku ci ëmb ba keroog ngay mucc lépp loo soxla jërul ngay sori nga am ko fii nga xam ne mooy mooy doo génn grand loolu mooy objectif nga xam ni Euh, monsieur le maire amnako ko ak son équipe municipale maintenant dañuy génn partie maternité dem poste de santé pour vous dire que c'est c'est en deux parties poste de santé maintenant fa lañ jëm nañ ci ci maternité Puis, c'est la salle de consultation salle de consultation vous allez voir mën ngeen vous, am na am

salle de soins vous allez voir que les équipements sont. waaw fii ñu toujours salle de soins Là. et salle bu ngeen ci dugg vous allez vous rendre compte que équipement yi euh, mi mingi mingi mingi mingi ci bir parce que li may wax rek monsieur le maire waxul tabax rek daf ni dañuy ranger tabax équipé parce que li ñuy wax ubbi tay jang tay ñun dañu bëgg ubbi tay liggéey tay donc lolu moy objectif fi maire grand ñu continuer toujours en face vous avez la salle d'observation ce qu'on appelle la salle d'observation toujours équipé manière vous allez vous rendre compte que salle rek équipement pour dire que doomu Grand tay war nañ donc vous ngeen vous ngeen xol ñu ci biir ngeen équipement équipement salle d'observation bi lépp ci ci ci mairie Grand bi toujours de les toilettes toilettes Maintenant, donne 5 salles salles d'hospitalisation yi ba léegi des salle d'hospitalisation avec son lot d'équipement comme toutes les salles dans chaque chaque salle d'hospitalisation il y a 5 lits au total au niveau de poste de santé nous avons une capacité de 20 lits Nous xam ni c'est augmenter en fonction des besoins bi nga xam donc ñu continuer toujours Ben, aspect bu am solo de xam ne bëgg nañ ko fi fii labo d'analyse yenn salle jigéen ñëw ci poste de santé am ay analyse yu def ñu génne nga dem maintenant à partir de là dina am outil yoo xam dina la permettre nga mën def say analyse au niveau du poste de santé toujours l'objectif est que loo soxla rek loo ne poste de santé war na ko def nga mën ko am nga mën ko am si biir donc euh, donc ñu continuer suis toujours vol administratif parce que c'est là, le bureau de infirmier chef de poste patron je suis le bureau madame Il y' a une pharmacie C'est la pharmacie cette salle elle est prévue pour pharmacie donc ngeen ne la pharmacie pour nous dire que nous ay garab ñu mën comme moy maternité donc mon bureau à gauche c'est la maternité en face nous avons ce qu'on appelle la salle préparatoire donc salle préparatoire bi ci salle d'équipement salle salle d'accouchement vous allez voir que la table d'accouchement mi ngi véritable d'accouchement la boo fi donc en gros loolu dal moy moy moy présentation bi vous allez voir que tout le matériel nécessaire est là donc à 16 h Inch'Allah, M. monsieur le maire viendra avec son équipe réceptionner provisoirement à ceux qui se demandent, c'est quoi réception provisoire mais euh, il y a toujours des travaux yo xamni c'est en cours madame soo demee ci ginnaw bo démé ci morgue bi logement ICP c'est à finir mais le bâtiment sanitairement parlant c'est prêt et c'est fonctionnel dès demain nouvelle bi ci neex moy monsieur le maire daf ni suñu ko ubbee tey ba le 27 les soins sont gratuits Kep ku ñëw faju do fay dara à part sa ordonnance ngay jënd Lepp lo soxla bo ñewé da ngay faju gratuitement Benen bi bébé bi fi njëkk a judd am ay neexal yu mu prévoir pour yow ak sa waajur Bokul ak bébé de l'année nak su dé judd na fi yooyu ay neexal la yo xam la mairie de Grand Yoff prévoir na ko donc di wax waa Grand dal daal seen bërëb ngok ngoog seen kër ba Grand Grand c'est la première fois ñu am avons gu ñu defalal infrastructure bu toll nii c'est à reconnaître malgré les difficultés aujourd'hui au na bi ci même allée bi damay wax ni am état civil Nous ñi ngi ci maternité on va bientôt démolir le foyer des jeunes mais si ñu ko démolir avant de pare on vous donne rendez-vous très bientôt à Harial. Si vous fa demee tamit liggéey bu mel nii nañ ko ak ville de Dakar defar ko donc c'est le Grand qui change avec le maire Madiop et son équipe municipale waaw waaw waaw waaw waaw tey moom tey moom waa Grand Yoff tey xaw ma nu ñu yeewee de waa dañu yeew rek surtout démb démb dama génn rek ma gëlëm ndax ba ma egsee fii ma ñëw rek fekk hôpital bi taxaw nii ndax nit moom balaa am dara nga am fi nga xamante da ngay fajoo boo sëkkatee nga daw fa nga dem faju ji ndax jamono bii feebar kese la nit ñi di sooxaale tey lu mu taxawal fii ñun moom surtout waa waa Arafat dañ génn rek gëlëm waa Grand Yoff bu ñu egsee fii dañuy gën a gëlëm ndax nit moom balaa ngay am dara sa sa gox danga leen di tabaxal fi nga xamante dañuy fajoo bu ñu yeewee sëkkër rek ñu dem faju ji balaa nga koy jox nit mu lekk ba suur nga gestu fi nga xamante bu feebaree dem faju ji ndax lu mu def fii tey ah ñun de dañu gëlëm de gisoo Grand Yoff ñëpp a taxaw di xool lan moo fi xew tey lu mu def nii yàlla na ko yàlla gën a dooleel mu gën ñu yokkal li nga xamante bu ñu gestuwee rek suñu xol sedd Maniack Diop kenn mënu laa fay tey nii hôpital bi taxaw fii ndax nit moom balaa ngay am dara nga am sa wér fi nga xamante da ngay wéree ñu ngi lay gërëm ñung lee lay sant ñi nga xamante da nga bokk lépp liggéey bi. waaw nga dëgg sama doom maa ngi lay fay jërëjëf jëf xanaa di kontaan rek di kontaan di bëgg waaw xanaa kontaan rek ci yéen ndax li ngeen def nii moom macha allah ndax lii moom lu jigéen ñi ajo woo la. lii su ngeen ko defee ci biir marché Grand Yoff gii kon mel ni ñun ñu ngeen ko defal ñun waa Grand Yoff ñun waa euh, ba Liberté 6 ba Arafat gii ñun ñëpp daal suñu yeboon wax dëgg yàlla sant yàlla lañ war a def Bamba Diop ñu ñun ñoo dëkk ñun do këram a ngi nii sama kër ngi nii kon ku bu defee lii tey ñu def ko ci turam man damay sant yàlla ndax def nañ ko suñu turu njaboot kon kii li ñu koy ñaanal mooy yàlla may ko gudd fan may ko wér moo xam su bëgg a xeggeel yàlla xeggale ak yéen taxawaay yal na yàlla fay len lii de ngeen ñaan ci yalla dal li mom ah wax deug yalla ci ko ci kanam contane nañ ci trop jëri ngeen jëf contane nañ ci macha allah dafa nek li nga xamanteni ni yéen dafa nekk li nga xamante da ngeen kaa yàgg xaar yeen askanu Grand yof ma sha allah dañ ko yag di xaar yag ko bëgg lool li dañ ko yag ndax li dafa bax daf ñoo noppal dafa noppal suñu njabot da li ñun ñi ñun la man mi la wax man te sama njabot bu kenn matu won tay duma jël taxi sama kër ngi ni dama and ak ñom fi xam nga li dara da xuko kon nañ li ñu leen di gëreem bu baax sant nañ leen bu baax li ngeen def kontaan nañ ci salaamaaleykum sëñ bi maa lay delloo ziar bu baax maa ngi tudd Assane sant gu jaab nekk doomu Garaaf juddoo Garaaf yoroo Garaaf màggee Garaaf di santaat population Garaaf di santaat suñu maire Pama Diop Diop di koy ñaanal bu baax wér gi yaramu gudd fan ndax nit moom bu amee wér a gudd fan rek maam daanaka mooy lépp si doomu aadama di santaat encore une fois tamit maam ci lii nii mu ñu indi nii de wax dëgg yàlla moom dafa nekk tam mbégte si ñun ndax ñun ay doomu Garaaf lañ yoroo Grand maa ngi Grand te bu ñu demee ba am ni ñu Grand Yoff sag la su ñun moom li ñu mën a dëmale mooy lii ñu defal ñu rafet suñu njaboot suñuy sët suñu lu ne xam nga mais barki yàlla kontaan naa rafet na mais mu jox moom mu ngi liggéey mu ngi liggéey lu mu mën mu ngi def lu mu mën ak lu mu mënul xam nga mais nañ ko bàyyi mun nekk xelam liggéey xam moo gën ñuy soxor di ko iñaanee di ko rey fii di ko lu ne ñu koy wax nañ ko bàyyi mu liggéey kat la bëgg na Grand Yoff bëgg na Arafat bëgg na fepp lay yamalé waaw Mo job champion la bu ko bañ nak lu muy def mu ngi def. ah ñi ngi leen di sante di leen gëreum vraiment contane nañu trop trop lu ngeen octobre bi mu taxawé ni waaw lu ñu def rafet na trop ñu ngi contane xol yaangi sedd guy ñu ngi koy ñaanal tam mu jëm kanam. waaw donc li ni mel dafa nekk li nga xamante ne yéen da ngeen kaa yàgg xaar yéen soxna yi. waaw yàgg nañ ko tam di ko xaar trop. auzu billahi sant yàlla bu baax a baax a baax sant yàlla julli si yonent bi sant suñu waa ñaari waajur waaw dañu naan ku gërëmul yàlla doo gërëm nit waaye ñun dañuy boole lépp sant ak ngërëm waaw te ku ñuy gërëm bu ñu ginnaaw bu ñu sant yàlla julli si yonent bi ba gërëm sant suñu ñaari waajur dañuy sant ma jóg parce que bi mu toogee rek ba mu nekkee gagné poste mairie bi rek la njëkk ne sama premier objectif mooy balaa ma fiy jógee dama bëgg maternité Grand Yoff bi ma tabaxaat ko jox ko beneen tournure te ni mu ko waxee noonu la ko defee tabax na ko ba mu baax équipé na ko kon ñun fii fu tool nii liggéey doon nga ñu war ñun parce que bu fekkee infrastructure rek am nañ ko ba pare léegi nag ñun ñoo war a góor góorgóorlu fas jom liggéey te incha allahu rabbi loolu laay ci loolu laay woo population Grand Yoff ci loolu laay woo sama euh, personnel bi nekk ci maternité Grand Yoff yëpp nañu gën am jom di liggéey si fulla ak fayda da nekk nekk fi pour population Grand Yoff daal waaw parce que dañoo am yaakaar si ñun moo tax ñu teg ñu fi waaw. ci loolu dégg nañ bi. Hmm. ak poste de santé bi daanaka équipé nañ ko. waaw mais suñu sukkandikoo ci xabaar bi ñu jot a am. Hmm. allah ci altine hmm. la poste bi dina tàmbali liggéeyam ndax loolu xabaar bi waaw.

bu ñu joxee suñu caabi yi ba pare bu subaa ëllëg incha allah lundi bëgg naa dem rencontrer sama médecin chef district bi maanaam moo nekk Nabi Choucair su ko defee ma xamal ko ne hôpital bi pare na caabi yaa ngi nii jox na ma ko moom tam mu jox ma dogal jox ma ndigal wax ma lu may def daal ak su ko defee ma xam fu may teg sama tànk parce que lu mel nii maternité bi ku ko tabax ba mu baax nii. wax dëgg neex yàlla erreur waruñu looloo tax lépp loo xam ne war nañ ko def ak fépp foo xam ne war nañ fa jaar ak képp koo xam ne war nga am nga fi dogal am nga fi kii bu soobee yàlla dinañu jaar fépp ba nga xam ne suñuy commencé fii dinañ si dugg si bisimilahi rahmaani rahim eggale ci suñu sago alhamdulilahi rabil alamin bañ aussi euh, bañ a bañ a rusloo ma job daal parce que lii poste santé bi qu'il y tient beaucoup il tient beaucoup man mi di wax ak yow xamna ci si dara parce que bien avant ça muy muy muy jël décision bi ki bi muñu leen dem réunion té waxul waxu poste de santé Grand yof do. sama objectif moy bala ma fiy jógee si kiiwu maire bi ma tabax poste de santé bi defaraat maternité bi ba nga xamné population Grand yof duñu sonn Té def na ko waaw lii dafa nekk loo xam ne dañ ko doon yàgg xaar bu baax a baax a baax dafa ñëw si waxtu mu war a ñëwee waaw di ko ñaanal moom ma jóg fu mu jublu yàlla na fa yàlla jubli lépp lu mu sumb ak lépp loo xam ne xalaat na ko si politique am nii yàlla na ko ci yàlla defal lu kawe njottam ci barke Seydina Muhammad